sëriñ Mbàkke soxna loo may na nu doon xaar sëriñ Mbàkke dalal nga sunu xel nga sunu xol yow yaa di ñaan ci yow mi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fii ci Touba Darul Quddoos toog ak mm, seex si nga xam ni ñoo baaxoo di am ndigal ci sëriñ Moustapha mii nga xam ni moo fi ne te jiital sëñ Mbacke Gueye ngàcc ay jëwriñam toog nii di sëriñ Xaadim Gaye di sëriñ Ndiaye géey di doomam di jëwriñam ak mboolem ñi àndal liggéey bi ngir toll ci waajal màggaluk mu Muharram di guddik ñaar fukkeel ci weeru tamxarit gi nga xam ni moom la sun borom dogaloon Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu andi sëriñ bi fii ci Touba gannaaw ba sun borom dogalee ab dogalam guddi googee ba ko Cheikh Mouhamadou Moustapha indee ba noppi gannaaw loola mu santaane woon guddi googu bu dikkatee ñu taalibe yi daje màggal ko ci jàng alxuraan ak jàng xasiida ak def ay bernde mu defoon dénkaane bu am solo moom Cheikh Mouhamadou Moustapha dénk ko taalibe yi ci booloo ak bennoo ak jaamu yàlla ak wéetal yàlla ak liggéeyal Seyxuna Ahmad al Xadim radiyallahu loola nag kilifa yi fi nekk jaar gannaawam moom Cheikh Mouhamadou Moustapha doon ko wéyal ka ca jëkk di sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi dim taawam jëkk ko fee wuutu gannaaw ba sëñ Mbacke Madina ñu topp ko ba yàlla dogal tey sëñ Ahmadou Mokhtar mooy ki fi toogal Cheikh Modou Moustapha sëñ Moustapha Mouhamad mii nag di doomi sëñ Mbacke Mouhamad moom itam am taxawaay bu rëy rëy ci bis bi ànd koog taalibe yi ba wax ni bokk na ci bis yi nga xam ni mi ngi sàkku ci képp ku ànd ak moom bu dikkee nga def ci sa pësteef def ci taxawaay ñu dundal ko naka kilifa ya nga xam ne ñoo fi jiitu woon daa dundale kon loolu mooy waajtaay wi lii nag tàmbali woon ci jamono yi sëñ Moustapha Gaye bi mu doonee xalifab seex yi moo daa ñëw fii bu màggal gi desee ay fan di fi nekk kilifa yi ñuy indi seeni hadiya ngir waajal màggal gi ngir màggal gi yéwén ba bernde yi fu mu war dem ak fu mu war àgg mu dem fa àgg fa loola di dox ba mu fi jógee it sëñ Mbacke Fassila moo ko fi wuutu woon moom sëñ Moustapha Gaye bi fi sëñ Moustapha Gaye jógee nag sëñ Mbacke ngàcc tey moo fi ne moo tax ay jëwriñam ak ndaw yi nga xam ne ñooy dikk di taxawu liggéey bi ñoom ngeen gis nii tey ñuy ñaan sun borom taala ko taala kon liggéey bi yàlla na ko sun borom gërëm te yéegal ko ci liggéey ñu jiitu woon sëñ Moustapha Mouhamad ak ki am ñëpp yàlla na yàlla yàggal leen ci seen kanam nu yàgg seen ginnaaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah